bokk juddi di bokki taalibe yi ñu ngi fii ci kër Cheikhul Khadim ci kër Cheikh mu Mountakha ci ndigalam ngir jot ay kàddu yu ndigal ndax lii nga xam ne euh, mbas la moo xam ne suñu borom moo ko fi wàcce te nag jekk mas a ci àdduna di am ci jamono yonent yi ba na gën a ci jamono sëriñ bi peste ba kon loolu yàgg ci àdduna la di soññ nit ñi rek ni ko sëriñ bi santaane eh, bëggoon na ci sax yëkkati ay kàddu waaye mu naa ko soññaat nit ñi ñu xam ne itam ndigal yi nga xam ne santaane na ko ñu di ko wattandiku ci biir jullikaay yi ndax eh, kon dem nañ ba ñëpp yéene woon nañ bëgg ñu ubbi ko ba yàlla def ñu ubbi ko nee na bu soñoon itam buñ ko ubbee itam nit ñi sàmmonteeg li nga xam ne mooy tax wér gu di wàlle waaye nag ni ñu koy sàmmonte ci biir jàkk yi ñu ne ci biir marché yi nee ñooñ ñooñu itam nañ xam ne eh, liggéey dafa mënta ñàkk ndax jàmm yàlla boobu nee na ci biir marché yi nañuy sàmmonteeg li nga xam ne ñu yor wàllu góor gi ñu ngi leen koy wax ngir bëgg eh, mbas la. ngir bañ a ndax képp koo xam ne wàll nga ko sa mbokk te rey ko kat na loolu bàkkaar bu rëy ji kon loolu itam nañ dañ koy wattandiku ci marché yi di ko wattandiku ci biir kër yi buñ ko defee rek yàlla mën na cee def tawfeex kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh